mbokk yi alhamdulilahi rabbil alamin ba ñu nekkee ay jullit alhamdulillah ala ni'matil islaam xéewal bu gën a rëy ci kaw suuf mooy yàlla bind la def la nga nekk jullit allahu akbar alhamdulillah ka ay jullit lañ bokk na ci xéewal bu gën a rëy ginnaaw bala borom santaala dafay jullit mooy yàlla déggloo la diine yonent bi alayhi salaatu wasalaam dex mu ne man yuridillahu bihi xayran yufaqihu fi diin ku yàlla namm ci moom yiw ku yàlla na mu ci moom réussite ku yàlla na mu ci moom yërmande àdduna ak àllaaxira da koy dégguloo diine yàlla nañu yàlla déggloo diine mooy dégg diine subhaanallah wallahi xéewal mbokk yi ñuy nga dégg diine xéewal ñuy jàng alxuraan nga xam lu muy firi gis nga bonheur boobu wallahi laa yuqaddar lahu bi saman amul prix kon bul ko xañ sa bopp fexeel nga xam mooy li yàlla di wax boo jàng bu ñuy julli wala booy julli boo nekkee ci ginnaaw imaam bu الحمد لله رب العالمين الرحمن nga xam lu muy firi imam bu jàngee ne alam tara ila alladhina baddalu ni'mata allahi wa ahallu qawmahum daar albawaar mooy nga xam lu muy wallahi bonheur boobu wallahi amul prix fexe loo mën nga dégg alxuraan suñ ko waxee suñ ko jàngee nga comprendre waaye bu ko xañ surtout sa doom fexeel sa doom dégg diine fexeel sa doom dégg alxuraan wallahi bu ñu xañ xéewal bi suñu njaboot xéewal la boo xamante ne amul prix allahu akbar